wootee ja sarsaara la jote mahfuus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuuli hildallaahi mu jox ko seex bamba biismillaahi ngëp ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jeebo ngëp ko subaa ngoon soo bëggee maqaama ak i ngërëm keroog bisub xiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la ci laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhillaahu salaa wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaalaa haasan nisaama xayra noorin qad halaa arrahmaan arrahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu alaa nabiyyinaa muhammadin wa aalihi ajmaiin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar di laayante biir a yéen ci lu am solo loo xam ne ndigalul sëriñ bu mag bee radiyallahu anhu lu mu jox mboolem taalibe yi muy jëfandikoo wérdu wi ko yàlla jagleel muy al wirdul maxuudu min allahi taala bi waasitati rasulihi sallallahu dafa doon loo xam ne dafa am solo ci dundu doomu aadama ak jullit bi ndax loo xam ne ab denc la ëllëg Sëriñ Tuubaa dafa wax ci masaalikul jinaan ne koo xam ne amul werdu wenn woo xam ne da koo saxal waxtu wu nekk ma ngay sànq waxtoom kooku ëllëg bu suñ boroom dee fay nit ñi moom du am lu may aw naqar ak njàqare aku tiis aku ay ndax sànq waxtu ku ko def danga ko rëccu ëllëg te dundal waxtu nag la ca gën mooy saxal aw werdu jaam bi day e, nekk koo xam ne munta ñàkk borom subhanahu wa fu mu toll tamit daa war a tëbblu ci boroom subhaanahu wa taala moo tax ku gën di tëbblu ci yàlla moo lay gën a dund ak waaye ku gën a sori ci yàlla moo la gën a dee ak ruux gën a màggal ak ruux dana ci yàlla musal moo tax mm, gaa ñu baax naka jekk dañuy xënte woo seen digg seen taala euh, jamono bu ci ne ñuy dellu ci moom ku ay waxtu yoo xam ne su waxtoo jotee rek ñu dem dellu ca loola moo xam njàng alquran la moo xam azkar la moo xam lu mën a doon loolu nag bokk na ci njëriñu wérte yi nga xam ne moom la sufiyanke yëpp yor ci anam gu matale ndax aw yiw dëggantaan ni bi sallallahu alayhi wasallam eh, ci gën mooy loo saxal te nit ki mënta saxal mbir lu may da ko wutal waxtu woo xam saa yu ñëwee mu mu def ko loolu moo tax nag naka jekk góor yàlla yi dañuy fonk wérdu yor ko mu ne loo xam ne da leen lëkkale ak borom subhanahu wa taala di mbuum di goo xam ne mu leen jokkale wala di tiwo boo xam ne ci lañuy xëccam ndox muy ñëw tiwo bi lépp lu ko dog wala lépp lu ko fat euh, duñ ci am sago ci dañal ko ci sekkarti ko mbokk yi xam nañu wérdu ci tasawuf rukkunun rakiin la maanaam tasawuf du wér du dëgër du sax te àndut ak wér sëriñ mag bi radiyallahu anhu dafa jóg rek soobu yoonu mbaax wér di yëpp mu topp leen di ci jaamu boromam di sàkku ngërëmul ña ko yàlla jaaree ci ñoom ba am seen ngërëm ba egg ci boromam ba am ndigal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sunu borom jox ko wérul boppam ci gànnaar mu yabal mu yónnee ko ci réew mi yónnee ko kilifa yi jox ci ñëpp ndigal. ba mu ko jotee ca gànnaar ba génne ko jox ko naar boobu mu ko mu ko joxoon bind ak suñu am du jaxate da koo yónnee mag ñi kam ko njëkkee nag mooy magam sëñ Mor Jaara digal ci murid yëpp nañ koy jëfandikoo mag ñi tamit fonkoon ko lool ndax wëyal ndigal Sëriñ Tuubaa boobu noonu. Euh, ba ci mag ñi ñi fi nekk nii sax ba ci Muntaxa mi sax ak xalifa yi ko jiitu woon ko man sëñ Saalibu sëñ Abdul Qaadir sëñ Abibu Mbàkke ak mag ñi leen jiitu woon ñun ñëpp naka jëkk dañ ko xante woo fonk lool waaye muy lu am solo tamit loo xam ne ñi ko saxal ñëpp yëg nañ lool ci seen xol wérdu képp ku ko saxal rawatina nga di ko ba ñuy wax di ma yem ci max naa yi kese eh, di yem ci baat yi kese waaye di teewlu max naa yi ngay wax bàyyi xel naka yaa ngi jëkk sa sa kan borom subhanahu moom ngay bàkk ay wax waxam ngay wax loolu day feeñ ci sa dund feeñ ci sa jëflante waaye fal ceew yi àdduna ak i njàqareem ak i tiis tiisam ngay wéetlu ko su borom subhanahu wa taala loolu ku sax ci wértuwu tuuti danga ko dund da ko yëg ci sa xol wérdul maaxuus di wérdu bi nga xam ne moo jóge ci suñu borom subhanahu wa jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci cheikhul xadim radiallahu anhu sëriñ bi jot ci di ko jëfandikoo jox ko ak njabootam ngir ñu di ko jëfandikoo jox leen ci ndigal ak bépp jullit bu bëgg rek. dafa doon wérdu boo xam ne bu tedd la sëriñ bi wax ci lu bari euh, santaane ko it santaane goo xam ne ñëpp la maasale mboolem ñi aju ci moom di ay góor ak i jigéen mag ak i ndaw yëpp di ko maasale ko def lu jar a yittewoo la loo xam ne. képp ku bëgg lu baax rek war ngaa jéem a dem gëstu ji ko euh, gëstu nan lañ koy jëfandikoo lan moo di ay sartam. wirdu maaxuus mooy lan wirdu maaxuus lu ñuy jàng la loo xam ne taalibe bi taalibe bi koy jëfandikoo da ko war di jàng da koy jàng bis bu set ñaari yoon benn yoon ci suba gi benn yoon ci ngoon gi loolu mooy waxtoom benn yoon bu jullee suba ba noppi benn yoon bu jullee tàkkusaan ba noppi donte waxtu mën naa gën a yaatu. selon nit ki waxtoom ak euh, liggéeyam loolu mooy waxtu yi ñaari yoon nañ koy def ci bis bi suba ak ngoon ay baat lay ñuy jàng Cheikh Khadim moo ko digal mbooleem ay taalibeem ñu di ko jëfandikoo tey sañu képp ku ko man mu jël al wirdul maxuuz te sàmmonteeg sart yi te di ko saxal bu kenn wax nag ne dafa sart sart dafa jafe lenn lu jafe amut ci kanam pas-pas ak dogu ak yitte kawe dara jafewut sart yi nag du yu jafe ndax amul ci luñ sàkkuwut ci ab jullit bu ne li ci nur lu jafe soo ko saxaloon tuuti da nga yëg ne lu jafe nekku ci kon ndigalu sëriñ bee ñu ngi koy bàyyiloo bàyyiloo xel mbokk jullit yépp ñu fonk ko euh, di ko jëfandikoo waaye nag di ci xiir seen njaboot di jéem a tënku ci sarte yi yi mu àndal ndax tënku ci sarte yi mooy daanaka da lay gétan ci mbaax ndax fu baax ngay nekk ñu baax ngay jaxasoo waxtu wu lu baax ngay def julli mbooloo gi mu àndal jàng alxuraan gi mu àndal moytuwul amul njëriñu àndal eh, yi baax yi mu àndal ku képp ku ko saxal danga gën say moroom kon nag yiw la woo xam ne sëriñ bi daa bëgg ñu gën mu tegal ñu loo xam ne buñ ci sóoboo incha allah taala danañ gën. sart it nañ ko waxee jafewut te itam du ne nit ki day mën a sàmmanteeg yëpp ci njëlbeen gi door tàmbalee jëfandikoo wérdi bu fekkee ci njëlbeen gi it matal sart yëpp it du tee mu tàmbali ko tey jéem a matal sart yi ko tàmbalee rek di góorgóorlu ngir matal ko rek yàlla dana ko dimbale ba mën koo matal. charte dafa am ay façon te te wuute waaye ginnaaw ci tënk lañ nekk charte yi ci munta ñàkk ñett rek la bu njëkk bi mooy ku soxla wérdu wi da koy jëli ci ndigal ñaareel bi mooy ku koy jox day am ndigalul jox ko ko ñetteel bi mooy bu ci jotee da koy jëfandikoo ñaari yoon ci bis bu ne ñett yi ñetti sart ku ko mën a matale rek xamal ne mën ngaa jël wérdu maa jël ko ci ndigal ki la jox sañ la ko jox nga ko def ñaari yoon bi am na yeneen sart yu ci tege nag yoo xam ne lislaam a ko digal jullit ñëpp ngir ñu war koo def wérdu wi ñëw nag feddali ko ngir bëgg taalibe yi gën a fonk diine ni ko ni ngeen ko xamee ci Cheikh Khadim radiyallahu anhu lépp lu jëm ci diine day bëgg ñu gën koo fonk charte yooyu nag bu jullit bi bu taalibe bi matalee ñett yee yi da ciy def kem kàttanam lu mu man ci charte yi ko def bu mënee lu ko def ko lu mu ci mën mu di ko def lu mu ci mënut mu di ko yéene kon loolu rek mooy charte wetu maaxuus ndax buntu boobu bëri na laaj yi lu ñu koy laaj charte yi yi waaye charte yi noonu képp la demee ñett yooyu mooy yi ci mënta ñàkk des nag taalibe bi da cay nekk di ci góorgóorlu bokk na ca muut àndandoo yu baax loolu lislaam a ko digle bokk na ca muy fexe ba xam lu ay farataam ci diine loolu lislaam a ko digle bokk na ca muy jàng alxuraan bis bu set kem kattanam ñu ko fenn loolu lislaam a ko digle bokk na ci guddi ku jot mu naafila fukki raka comme ni ñu koy defee ci koor gi loolu lislaam a bu ko mu def li man ba ba mu koy man biir ju liggéey lu man mu jàng ko ca donte ñetti lixlaas la Cheikhul Xadim wax bokk na ca charte yi it euh, mu sax ci tuub te watandiku mboolem bàkkaar yu mag yooyu it lislaam a ko digle ñi dul murit sax sañu ñoo xëtt ndigal yooyu noonu kon loolu mooy charte yi bokk ci bunt bi nga xam ne seytaan dina ci jaar ngir tiital nit ñi ba dañu xam lu mu doon kon loolu mooy charte wirdu yi mu ne képp koo xam ne sax na ci wirdu wi fexe di góorgóorlu ci matal charte yi kooku dana dugg àjjana ca kenn du ko xisaab kenn du ko mbugal loolu jar na kenn ku nekk gën koo fonk gën koy jëfandikoo wérdu wii nag moom day wérdu woo xam ne Cheikhul Xadim da ko fonkoon lool digal digal ko mag ñi ba tàyyi waaye wérdu yi doon wérdu am solo boo xam tamit day wérdu woo xam ne bu matale la jaamia xool di gëstu ci wérdu suufiyanke yi jiitu woon sëriñ si borom tariqa yi na sa wérdu ñaar day am ci loo xam ci li gën jëm ñee masal ci istixfaar ñii ci salaat ala nabi ñii ci tasbihaat yi waaye wér moo xam woo xam ne moom lépp danga ko cay fekk lépp loo xam ne ñaar da ngay dem ci wérdu sàngam mu am ca lenn la kese moom na nga koy fekk ci lépp euh, léegi de masal wér nga dem ci fekk ci benn mbir masala mu yem daanaka muy lu jëm ci listixfaar boo ñëwee fekk ko fi léegi nga dem ci wér fekk fi listixfaar fekk salaatu ala bi boo ñëwee ñaar yi ba da nga fekk ko ci wér maxuus waaye nag loo xam day dajale lépp moom wér maxuus rek lañ ko lañ lañ lañ ko gisee. kon lu am solo lool ñëpp gën koo fonkaat ndax ndigalu Cheikhul Xadim la te it jaam bi ni ma ko waxoon sànq rek munta am waxtu yoo xam da ciy dellu ci borom subhanahu wa taala ca la ko ciy may gën lu ko ciy dimbale mu bañ koy sàggane waxtu wi saa yu ñëwee ba tey mu def ko mooy wutal ko waxtu sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek ahabul amali ilallahi wa in qalla man kaamil ndax sa waxtu may na la ko te gin woowu nga def nga def ko mu gën a ku ko mënut tamit man xafiif xafiif bu woyof bi baatu arab bu ni ñu koy firee bopp waaye ju teg na dafa woyof ndax luy gann la sañ bi ci boppam jeex na ko ñu bare bare bare moom la joxoon sëñ Mbàkke Buso moom la joxoon sëñ Mor Jaara kon nekkut na maxnaay dafa woyof wala waaye aw tur la rek ku mën boobu ba tey xayrun ah, ku man ba tey yooyu yëpp sa sa sa tënku nga ba nga xam ne amoo waxtu amoo temps nga yem ci xaatam bi nga xam ne Euh, am nañu ko doy la woon moom dong ci man ñi te moom it ci sëñ bi la jóge ku man xaatim ak xafiif ba tey nga boole leen xayrun kon ñu ngi ciy soññ seen bopp di soññ mboole murid yëpp ak jullit ñëpp ñu gën koo fonk gën cee bàyyi xel xam ne mënta ñàkk ndax ab jaam daa mënta ñàkk borom subhaanahu wa taala la ko cay eh, gën di delloo di ko gën di yeew nag lu mu gën a dëgër mu gën fa ci loolu bokk yi ci gën a gën a fës mooy wirdu kon ku ne ci noonu war na ko fonk waaye fonk loo ko njabootam ñu bàyyi xel ne ay suufi anke lañ ci tasawuf la ñuy dund te tasawuf bu wér nag bu ënd ak wérd moom mii ne su ko ci àdduna bi kon ab julit bu nekk ab suufi anke day wérd te wérd al wérdul maxluud nag am ay ngëneel yu bari sëñ bi waxal ko boppam ñu nekkoon ak moom nettali ko mu wax ne doy na sëkk wérd yu bare bare muy loo xam ne bu ci waxutoon benn njariñ sax boo dee xool ne tudd yàlla dafa baax ci jàmm njariñ yi ci sëriñ bi wax sax am na ci yoo xam ne aji jëfandikoo ji bu ko tàmbalikoo di ko def moom moo ko yëgal boppam day mel ne njariñ li ëpp na lii nga xam ne mooy li ñu bind doy na sëkk rek ne sëriñ bi nee na ku koy jëfandikoo dana dugg àjjana ci lu dul benn coon sëriñ bi nee na ku koy jëfandikoo danga nga dugg àjjana ci lu dul benn coon wax na yu ne ku koy jëfandikoo dana nekk aji texe ëllëg te it ab jullit lay doon aji gëm lay doon daanaka boo dee xool njariñ yi ci sëriñ bi wax muy njariñ yu baree bari ci koo xam ne yaa ngi saxal wérdu gi di ko def njariñ yi rek jaral na di ko saxal di ko def te am na fu wax ne doy na walis wërd yëpp ndax xolub wërd yëpp mi ngi ci biir dafa mel ni yàlla jagleel mooy sab yu baax yi tasaaroo woon ci biir gaa ñu baax ni moom la yàlla cërale mu daje ci wërdam yi bégle wax ne sunu borom jagleel na leen loo xam ne ñu bari ci waa jamono dañ leen ci ñee ñaan yàlla ne képp koo xam ne day jëfandikoo sama wërdu yi yàlla na ko may tuyaaba ji dagg faw wax ne képp kuy jëfandikoo wërd wi dana jariñu fi ci àdduna ak àllaaxira wax ne képp ku koy jëfandikoo te sax ci boole ko sart yi dana nekk mu'min muslim muhsin kon loolu mooy li nit bëgg kenn ku ne di dox jëm ci wax dëggu sa iman dëggu sa islaam dëggu rafet sa ihsaan wér te jëfandikoo wér sëriñ bi dana ko may nit bari loolu ay ngëneel yoo xam ne ay ahadis surat na ci ci ay ñaan yu ci nekk yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci ku koy jàng suba ak ngoon ni la yàlla lay musale ak ni lay mosale kon danga mucc mos loolu nag ab julit kon waru koo woyofal waru koo sàggane te it ndigalul sëriñ bi moom képp koo xam ne bëgg nga Euh, sax ci ndigal bokk na ci ndigal yi sëñ bi digal taalibe ñu di ko jëfandikoo jëfandikoo du maxuus doy na naa ko faral di wax lu bari doy na gàllaaj jàmm bi da koy jëfandikoo ngir jaamu yàlla ngir gën a jege boromam ngir gën a euh, am cër fa yàlla ngir gën a xejj fa suñu borom waaye loolu lépp nag da koy booleeg yàlla man ko ci jaarale musal ko ndax ay ayaat ak i ahadis ay adaan yoo xam ne kaaraange rek la saa bu ko jàmmi saxel di ko def mboolem luy lore di sawba ci seytaane wala bakkan wala bànneex yàlla mën na ko caa musal bëri na njëriñ doon nag yoo xam ne sëñ bi wax na ko xëy na ngir bëggal taalibe yi ngir ñu xam ne leen ciy xaaral lëkk bokk na ci yim nañ ci wax ne leen képp ku koy jëfandikoo da nga nekk dëgg dëgg jullit bu mat sëkk ci wàll yëpp muy mu'min muslim muhsin da nga am iman bu mat sëkk sa islam dina mat sa ihsaan dina mat wax na la yooyu ne ku koy jëfandikoo bu ëllëgee suñu borom du la xisaab du la mbugal insha allah taala te loolu mooy li ñëpp bëgg mooy mucc mucc gu wér bokk na ci li mu ci wax ne képp ku koy jëfandikoo seytaan du ko jege fenn te mbooleem lu ñuy musul ci àdduna ak àllaaxira suñu borom dina ko ci musal kenn ci mag ñi bokkoon si ñi mu ko joxoon waxoon na ne bis bi leen ko sëriñ bi joxee newoon na leen na ngeen ko jàpp bu baax te yàlla rek tax na ngeen ci góorgóorlu ne leen ku yoroon weneen wérdu bu bokk tëg maa gi du ko jiitu tey bu leen mënee boole na leen boole su leen mënut a boole nayam ci maaxuus gi te xam ne lu muy wut ci leneen rek mi ngi ci li kon taalibe ñu ne nañ xam ci xeet yooyu ci jariñ tur yàlla ñun ñu jëfandikoo ko ci ñu jaaree ko ci maaxuus moo gën wala boog nañ njëkke maaxuus luñ ciy teg ñu da ko ci teg ndax sëñ bee ñu ko fàggul te nee nañu mboolem lu ñu soxla ma nga ci ba mu leen ko joxee waxoon na leen ne leen buum gi dox seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa bu ngeen jàppee ci wetu yi gudd ndax da ngeen naan man mii ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mën naa am wirdu te ñiy dox digganteem ak sëriñ bi du ëpp ñaar nit ba fi mu ne nii mën nga koo jëlee ci nit koo ko jëlee ko ci kenn mu jëlee ko ci Cheikhul Khadim mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne liy dox sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi ñetti nit la doon gën ngaa bari ñeent lu dul jeex ci ñu ko mën a joxe kon loolu it ñu bàyyi ci xel wérdu bi nag li tax ñu war koo fonk mooy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu da koo fonk lu woon soññee ci lool wax ci ay njariñam lu bare bare bari sëriñ bi am na leetar boo xam ne bindoon na ko lenn ci ay taalibeem booba mi ngi Muritani mu wax ca ne ubashirukum bi anna allaha tabaraka wa taala xassakum bi ma yaxbitukum fiihi kathirun min ahli al asr fashkuruhu ala dalika alwirdi almubaraki wa ala gayrihi mimma satajidunahu ajilan wa ajilan min fadlihi wa juudihi wa karamihi insha allahu tabaraka wa taala sëriñ bi da cay wax ne ko maa ngi lay bégal maa ngi leen di bégal ne suñu borom subhaanahu wa taala jagleel na leen loo xam ne ñu bari ci ñun jamono danañ leen ci ñee kon na ngeen ko sant ci wérdu woowu barkeel woowu ak ci yeneen yi nga xam ne dangeen ko ami ci lu teew ak luñ jublu muy tey ak ëllëg ci ngëneelam akuk mbaaxam akuk tabeem insha allahu tabaraka wa taala kon sëriñ bi soññ nañu ci ñu fonk lii nga xam ne ñu bari ci ñun jamono danañ ci ñee képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ko téye sëriñ bi waxaat ne di ñaanal koo xam ne yaa ngi jëfandikoo al wirdul maquz wax suñu boroom ne ko uktub liman agaza wirdi yaa karim mustaamilan bihi thawaaban laa yarim yow sama boroom bindalal képp koo xam ne jël na wirdu wii muy sama wirdu wii ku ko jëfandikoo nanga ko bindal ab yool boo xam ne du dakk mukk kon loolu ndegam sëriñ bi ñaan na suñ boroom mu defal kiy jëfandikoo werdu wi ab yool kon képp ku bëgg jariñu tey ak ëllëg war ngaa fonk werdu wi sëriñ bi wax ci loo xam ne doy na ab soññee ndax li nit jullit di gën a daw gën koo ragal muy texee di nee na képp koo xam ne yaa ngi jëfandikoo bokk na ci njariñul wirdu yi mooy képp ku koy jëfandikoo sax ci doo texee di mukk mu ne <clears throat> wa min fawaidihi anna man daawama alayhi laa yakunu shaqiyan bal yakunu ala xayrin wa aafiyatin muminan musliman muhsina ku saxal doo texee di mukk te danga nekk ci aw yiw nekk ci aafiya ak jàmm doon ab jullit doon ku gëm yàlla doon koo xam ne ku koy jëfe la mu gëm la doon koo xam ne ku koy rafetal la it muy wird woo xam ne bari na njëriñ lool donte sax nag taalibe bu koy def ay ay njëriñ yooyu waru ko ci dugal na ko def rek ngir Cheikhul Khadim mooy suñu sëriñ moom lañu suñu borom sedde moo ñu ko digal suñ bi lu mu ñu digal rek suñu njëriñ la kon bu ci nit ki di dugg na ko def rek ngir jëfee ndigalul Cheikhul Khadim bu du toon ngëneel yi sax waaye sàmmonteeg sàrt yi rek doy na ngëneel mi sàrt yi nit war a sàmmonteel buy jëfandikoo werdu yi nit fexe ba loolu nekk ci moom rek doy na ngëneel rawatina nag yeneen yi ci dolliku te mu waxal ko boppam sëriñ bi it bu ñu digalee sax daanaka du jar sax ñuy xool lam ñu digal ndax am na njariñum ca wax wala amul njariñum ca wax bind gi mu bind yaxal jox ko ñu bari ci mag ñi nga xam ne nekkoon nañu moom ñu gis njabootu Serigne Touba mi ñu ko fonke woon ak gaa ñu baax ñi loolu rek jar na ñu dem wutali ko muy e, ndigal loo xam ne it nit ki mën na koo tarxiya mën na koo tarbiya mën ko tarxiya ndax saa bu ci tënkoo dañ la yéegi li manqué woon ci yëpp dana ko mottali ndax dalay tënk ci mbaax tënk la ci ak njub lu ama am solo muy lii di al wirdul maquuz min allaahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muy wirdu yi nga xam ne su ci borom subhanahu wa taala moo ko jagleel cheikhul xadim radiallahu anhu ca jamono jooja mu nekk gànnaar ca sarsaara muy lu barkeel lool am lool loo xam ne daa bokk comme ni ngeen ko xamee rek ci jumtuwaay yi nga xam ne Euh, taalibe bi da ciy jaar ngir mën a àgg ci suñu borom subhanahu wa taala muy loo xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi ngi ko jotee ca gànnaar ci at mam fa demee muy 1321 1300 1903 sëriñ bi jot ca gànnaar di ko jëfandikoo jox ko taalibe yëpp jox lañ ci ndigal ñu di ko jëfandikoo boobu ba léegi muy lu rëy di lu màgg di lu barkeel lool loo xam ne daa bokk ci yi nga xam ne may yu rëy yi suñu borom defal sëriñ bi radiyallahu anhu wa arda muy wirdu boo xam ne mësee su ko jox kenn nitu yàlla ci sëñ bi lañ ko njëkk jox muy loo xam ne kon lu rëy la ci biir ku xam ku xam ci biir tasawuf ni ñu fonkee wird ak ni ñu fonkee nit ku dem ba am wirdu boppam ndax ñu néew néew lañu ko am nag sëriñ bi nag yàlla baaxee ko jox ko wirdu boppam woo xam ne làmboona mbooti wirdu yëpp jox ci yëpp ndigal kon foofu am murit bu bëgg am ngërëmul yàlla am mbégum sëriñ bi du sàggane wirdu woowu ndax ab kuñ ne al muridu mooy ki nga xam ne ngërëmul suñu borom subhanahu wa lay wut ci lu nekk ci gërëm loola yoon wa ci gën a gaaw mooy lañ la digal ci sëriñ bi digle na ñu fonk wird bi ñaanal ku ko fonk wax ci ay njariñ yu yaatoo yaatu kon nag ñi ngi koy fàttali suñu bopp di ko fàttali suñu mbokk taalibe di ko fàttali jullit yi bu doon loo xam ne moom lu mu fonk la lool wax ci lu bari digle ko it surtout ci jamono ji ñu toll nga xam ne euh, seytaan dafa bari doole lool ci tudd yàlla day defar ab jaam ci biir ak ci bitti tudd yàlla nag goo xam ne dafa ànd ak ndigal ànd ak loo xam ne dañ koo waajal ba nga xam ne lu baax la ci taalibe bi lu mën a jëfandikoo la lu koy jariñ la loolu dara ëpp ko solo dara ëpp ko solo di wër ak a laaj aw tuuf yaakaar naa lii nga xam ne sëriñ bi dajale na ko ñu tudde ko wérdu maaxuus ca ak façon yam doon yëpp nga xam ne boo ci jël rek baax na loolu daa doon loo xam ne lu ñu waajal la lu ñu waajal la loo xam ne mooy li lay defar fii ci àdduna ak la lay defar fële moo tax njariñ yi bari boo bari na ci loo xam ne ki koy jëfandikoo léeg-léeg da ciy yëg loo xam ne sax du ko mën a wax wala da ciy yëg loo xam ne sax moo ëpp li ñu bind ne lii mooy ay njariñam moo tax ku di taalibe rek euh, war nga ko mën a jël te du yàq dara ci sa yitte lu jël benn temps sa jamono moo tax euh, lu am solo loo xam ne lu mat di fàttali la lu mat di yaatal la lu mat a gëstu la lu mat a xam la maa ngi ñaan suñ borom mu xiir ci ndaw ñi yépp góor ñi ak jigéen ñi ñu jëfandikoo ndax njariñ rek moo ci nekk njariñul àddina ak njariñul àllaaxira kon daal soññe googu lan jàppoon ne war nañ koo def ndax euh, sëñ bi diggéene ci aw yiwu mag dëgg la nag kenn du wax ne jëfandikoo wird mooy tax a doon murit waaye nag jëfandikoo wird moom ngëneel lu mag a mag la al wirdul maxuus ngëneel lu mag mi ngi ci moo taxoon képp ku ko man na ko jox yitte jële ko fa mu ko war a jële di ko jëfandikoo na mu ko war a jëfandikoo li tax ñu di ko soññee nag ak di ko fàttali di ko fàttali suñu bopp dafa doon loo xam ne bépp taalibe bu yaakaar sëñ bi war nga ko yittewoo war nga cee sonnewu war nga caa def sa kem kàttan ndax loo xam ne dalay jegeel sa boroom loo xam ne day defar sa ruux loo xam ne day tax nga texe tey ak ëllëg loolu ku ko suñu boroom jagleel war nga caa góorgóorlu ñuy fàttali rek ne nekkul loo xam ne mag ñi rek ñoo koy war di def wala góor ñi rek ñoo ko war def sëriñ bi ni mu bind ne sant naa ñi aju ci man daa jëfandikoo baatu góor góor ñi nga xam ne dañoo aju ci man ñëpp ak jigéen ñi nga xam ne dañoo aju ci man ñëpp digal naa leen ñu di ko def képp ku ko jëloon nag ngir bëgg lu baax rek